这这这这这这 كيف تعلم des qualités, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Le célèbre dit à affirme Levez sans piètre, l'histoire est continue. Par ma voix, vous entendrez la vérité. Oui, la vérité. Que la vérité. Et rien que la vérité. Et cette vérité, nul autre que l'œuvre de l'homme l'homme l'homme du présent, le Coran. Celui-ci aujourd'hui est conçu comme cette vieille institution qui, au lieu de courir, marche, et dans cette marche, trébuche. Dès lors, semble-t-il opportun de s'interroger sur la question de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de la stagnation des écoles coraniques. Sans la première réponse évidente est le manque de temps de pouvoir se déchirer les jeunes qui, à leur tour, n'arrivent pas à jongler les deux disciplines. Aujourd'hui, au XXIe siècle, ce souci tant présent est dissipé avec l'apparition de l'étude islamique de haut niveau, doté de préparateurs qualifiés, aptes à dispenser autant qu'on faire se peut, sous le sceau de la scientificité, une connaissance des deux disciplines. mu, sur, ému, qui endure, se marche du podium de ce soir. Certes, c'est vrai, c'est l'enjeu de ce soir. Mais au-delà de ces caquettes, je suis une fille qui nourrit les ambitions, porteuse d'espoir de toute une société, et qui à la fois, en la bienveillance et en la clairvoyance, les autorités tant étatiques que pédagogiques, il me vient à l'esprit de vous dire, comme une marche vers une révention du Coran dans la territoire, est un marathon, et nous construit. Donnons du temps au temps. Et j'espère qu'après cet orage, l'image de l'école coranique sénégalaise retrouvera son lustre dans le temps. Vous êtes remerciés du fond du cœur. Fleiro Mochila Mero Paraguai Mocuedo. Oh. Escura eu. Agarrei, banheiro. Elemento aí lá, tá? Uh,

wàllu li ma bokk ak euh, ki nga xamante ni tey moo ubbi institut islamique bi di oustaz euh, Abdoulaye Guèye di sama frère di sama mbokk di sama xarit euh, ndaxte lii nii dunni guléet te aussi bettuñu si ñoom ndax seen wejur bu baax ba bi nga xamante ni moom lañu tuddee bis bi di El Hadj Khalifa Guèye nekkoon sama wayjur nekkoon sama conseiller nekkoon sama lépp ndax moom moom ak sama papa ñoo bokk

parce que si vous ñu une politique wax nga une politique politique autrement mooy mooy rénover taxawu mais aussi rénover d'ara. parce que vous ku gis lii institut islamique moderne Il faut que vous fay jàngale alxuraan jàngale fa langue arabe jàngale fa bilingue parce que vous avez dinañ fi français mais aussi dinañ fi anglais donc je pense que ça c'est une innovation de taille te lolu aussi dañ koy avez saluer ñi nga xamante une initier lolo. donc je leen encourager te xam ni lii wante sen pas-pas ak sen gëm-gëm mais aussi sen yar balen sen wayjur ba yar parce que tay dama koy fatali mom buma ma ko mësaan seeti danaan ma man pertuma ma ndax dama investir ci alcorane dama investir ci dara dama investir lo xamanteni moy yar doomu adama moy jëm ci yoonu yalla donc toutes les diine euh benn la wante aussi tay li ñi ñun ay jullit lañ bu ñu gisee ñoo xamante vraiment ñu ngi innover di participer à la modernisation des daara jël ay xale yoo xamante ni euh, euh, ay xale yu ndaw former leen mais aussi li ma si impressionné mooy euh, la formation courte bi nga xamante ni def nañ ko si français bi tey loolu dafa am solo parce que xale yi nee nañ bi ñu fi ñëwee à trois ans la ñuy mokkal alxuraan bu ñu paree encore trois ans encore lañuy def cycle primaire donc je pense que loolu dafa am solo donc euh, ñu ngi leen ci sant bu baax te xam ni ñu ngi liggéeyal Sénégal ñu ngi liggéeyal réew mi donc tey bu ñuy wax émergence donc tey ñuy ni daara de l' émergence donc tey le président Macky Sall bi nga xamante ni moom la ñuy jàppale bi mu lancé le plan Sénégal émergent am na ay nitu daara ay nit yoo xamante ni ay nit de valeur lañ yi nga xamante ni li lañ ñor mooy éducation jàppale ndaw yi ñu suivre nañ la dynamique du président Macky Sall mooy taxawu innover donc je pense que képp ku citoyen war nga mën a taxaw innover créer def loo xamante ngay participer ci sa développement réew donc ñun nag. di mouvement Siggi Jotna ku ñu gis xam ñun si dynamique boobu la ñuy nekk ku ñu woo si diine dinañ fa dem ku ñu woo si éducation nañ fa dem ku ñu woo si social dinañ fa dem ndaxte li ñu ñor mooy Thiès jëm kanam mais aussi taxawu la président de la République ndax liggéey bi mu entamé pour un Sénégal émergent mën koo yeggalee te ñu ngi jëm si ay échéances lu am solo ñu ngi ñaan ñëpp. dem si si jàmm génn si si jàmm te ñaanal suñu président mu am ci ndaw maa ngi leen sant bu baax di leen gërëm.